gannaaw nuyoo. ginnaaw nuyoo rek. bu ñu teg ci li yonent bi wax ci santaane nuyoo. lim ñu sant ci nuyoo. ndax njariñ la ca nekk bari na ba ëpp. mooy asalaamualeykum. wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Sëriñ Mansour ne buñ ko tegee ba pare. ne ni mu gisee jataay bi dañuy àbb Serigne Cheikh génne ko ci mbooloo mi mu àndal ta mu bokk ca mbooloo ma mu ñëw ci lii mu bokk ci buudi saaxu te waa buudi teew Serigne Mansour Sarr ne mi ngi wax ni ñii fi ñëw dafa am ngëneel bu ñu làmboo ñoom nee te ki dul waxantu nag moo ko wax nee moo waral mu bëggoon ñun ñi am wërsëgu yàlla baaxee ñu buñ leen fekki woon doy na ngëneel yàlla ci màggaayam ak ci barke Seydina Muhammad mi wax wax bii may bëgg a nettali ñu baaxee ba ñu fekki si ñu ne biñ ma joxee léegi enveloppe boobu xaw tuuti ma delloo leen ko ndax defadi yéen maa leen war a jox ndax wax bii may bëgg a nettali sëñ Mansour ne xam naa ñun li ñu war a def ngànnaay ci jataayu kilifa yu baax yi ne la a waxoon ni ayaa saamian laysa samaau mi naafii iza anta lam tafaal tama anta saamiw ne jaadu jataay bi doy na gàmmu gi de sëñ Mansour ndax ndax li mu am te mënatul am lu ëpp loolee ndax woy juróom sëriñ Muniru Sarr moo wax ku xeeb sa cër ñàkk ndax yàlla moom séddale na cër yi ba noppi te kenn mën mënta xeeb sa cër ba yàlla wàcc di séddalewaat kon suñu cër sëñ Mansour Sarr nee nañ ko fonk tey déglu nag nee kii digle loolu mooy cëram kii déglu jëfe loolooy cëram nee yeneen bi bu nee yonent bi damay wax ni démocrate ci moom la yem. sëñ Mansour Sall nee na day wax démocratie bii ñuy wax ci yonent bi la yem. waaye gis naa ñaar. waaye nee na gis na ñaar. yamale wu ca de. yamale wu ca de. nee da koy seetlu rek. moo tax ma wàññeeku. jéem koo fonkal moom ñaar ñooñee. Mm-hmm. nee li mu wax ni. ida samaytumul walada muhammadan fa akrimuhu waa ki jur ñëpp ilif ñëpp. nee ki jur ñëpp yulif ñëpp. ci biir ci biir ñooñee mu yilif. mu ni dimbali leen ma. mu ni yéen dimbali leen ma. bàyyil leen ma xel. njaboot yii ñu ma tuddee ñoom Seydouna Mouhamed ñu ndaw ñun ma tuddee seen kër yi. nee xanaa foofu yonent bi dama xoolul démocratie turandoo rëy na de. nee waaye tànn gi mu tànn. ci biir ummaam. ci biir ummaam njabootu boppam. ci biir mission am mu tànn ca tànn boo xam ni benn tànn tegoogul ci tànneef boobu lu mu wax xayrukum man taallama alquran wa allamahu ne waaye kon ñii waaye ñoom ban wàcc waaye la ñoom moom sëñ Mansour ne nee sëriñ waxul yàlla euh, wali yu waxul wali yu waxul xut bu waxul kenn waxul dama ni baat boobii nee nañu ñi jàng ko di ko jàngale ñoo gën sëñ Mansour Sarr nee na lu fi nit di waxati amatu fi nee loolee nag ka gën ñëpp boo yore li nga defe ni moo gën mu ñëw joox ci jataay ba dëggalal ni li nga yor a gën ndax la mu yor mayatu ko mu teew ci leen lu dëggootul nga xam ni yow am nga yaqiin ni li nga yore wér na sëñ Mansour Sarr ne loole kenn mënu leen koo fay xanaa ñu ñaan yàlla rek li am solo leeru dënn yàlla bu yàlla dañ di leen ko defal nee na yàlla bu yàlla deñ di leen defal leeru dënn yàlla bu yàlla deñ di leen defal leeru dënn ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak tedd ngaam ñun ñii nag lii suñu wàll mooy la sëñ Muniru Saar waxoon nee woon na bopp bu nar a am barke ëllëg nopp yuy dégg rek moo cay sax bopp bu naraam barke ëllëg nopp yu dégg ndigal moo cay sax kon nag suñu nopp yi yàlla na ko yàlla def mu nekk nopp yu dégg ndigal te daana wax moom sëñ Mouride ne ku kenn mënta digal nga def kenn mënu laa jay nga def kenn mënu laa xupp nga def nee na yow kenn mënu laa jëriñ ci nee sëñ Mansour ne bàyyi leen ko xel nit. day neex a digal buñ la digalee nga ni man du ma dof du ma ko def ñu jay la nga ni man kenn mënu maa jay ne doo jayaxu buñ la xubbee defal lii la yàlla bëgg ak lu mu dëgër dëgër nga ni waaye man kenn mënuma maa xub nee na kookee nit kenn du ko jariñoo ci àdduna kenn mënu koo jariñ ci kaw suuf ah sëñ Mansour ne bu ko defee kon ñaar yi rek ñoo fi daje kii war a santaane ñi war a santaane teew nañu ñi war a déglu teew nañu lu des ñaan yàlla jëriñu rek ne ñaan yàlla ñiy jëriñe tànk yu ñu dox yàlla na nekk tànk ngëneel fu ñu mën a toll yàlla na yàlla di fa seen wettal fu ñu mën a toll yàlla na yàlla di kuutaay ci seen ginnaaw ñun ñii tam fu ñu mën a toll yal na yàlla di suñu wéttal ku ñu war ginnaaw it yal na yàlla di suñu kuutaay yàlla mën na ko ci barke alquran ak barke gaa yi alquran yi ah ne ba tey loolu yëpp ci xeetu ngëneel la ne loo jël rek xëpp leen ñoom sëriñ Cheikh ñu yeew ko rek yal na yàgg yal na yàgg yal na yàgg yàlla bu ci seytaane am yoon yàlla bu ci seytaane am yoon barke Seydil Hadji Malick barke Serigne Babacar barke borom kër gi ak mag ñu baax ñi fi nekkoon ak moom yàlla na ko yàlla def barke Seydi Aboubacar jërë ngeen jëf ñu tàllal loxo yi Serigne ñaan